waaw Lamine mu ngi incité si Ablaye Ndiaye bi Ablaye Ndiaye doomu Robert Zowal frère Mamada Ndiaye. Ablaye Ndiaye lim ma yóbbante yëguma ko dégguma ko li Yékini Junior war a wax laa déglu wala li li Lac wara wax wala li Sa Thiès a wax wala li Malick Niang war wax wala li ñooñu war a wax may Moussa Ndoye ñooñu laa war a wax. Malick Niang nag na ñëpp nekk fi ñukk ndax ay kurfe ñam nga koy laaj Saalum Saalum Bébé Saalum yëpp tam. wal kitaabi am Malick Niang xëy di ndekee ñay. ndax dañoo tolloo taay te ma dàq ko bëri million fois. yaa fi wax sànq ne lamb ji ñett ñi dàq bëri ci laa bokk. kuy wax bébé li ko dal dafa entraîné wul dafa nii dafa naa. waaye Sénégal ñett ñi dàq bëri ci laa bokk te lañ doon xalaat naan moo ma téye téyutuma njortu naa ni bu ma ñëwaatee a ah, yàlla baax na. yàlla baax na. yaa fi wax sànq ne lu jiw ba jeexul dëjënu fa te Malick ñaa ay kurpeñam la yoroon. gis ku duma bébé. feebar ko téye woon waaye dafa mel ni moom tam fi mu toll nii. dama lay laaj na da ngaa gis gum ko duma bébé ñaar fukki combat ak ñett laa bëree dangaa gis ko duma bébé gis nga ko wax ma ñii dama duma yóbbu top 5 ñii ma top 5 leen ci ay secondes ñii ñu waaye yow sa waay. Bébé Saloum noonu maanaam la ñu bëri jàppatu ne Bébé Saloum boobu moom naax saay na. waaw loolu àdduna ni mel àdduna am na fi ñu fi doon roi des arènes demoon nañ ba kenn booletu ci carrière ba ci bàyyi ma ñoon may tudd léegi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. sunu mag Eumeu Sène gis nga carrière am daa métti woon trop difficile comme bu a diis bu Bébé Saloum bi te gis nga ah ba teel a terminé carrière damay ñaan yàlla am réussite boobu ndax maa ngi ci tax xale laa. li yi wax nag du ma décroiser loo ndax bàyyi fa laa woy biir nag borom ma koy aw yedd yërëm da koo gën sénégalais yi buñ fàtte diggante démb ak tay li fi xew. lum tuuti tuuti buñ sakk sama ay jëf yi fi jot jaar ak sama jëf yi fi des ma war koo def. ah waaw Garga Mbossé ci àdduna lu kon naqari maa ko teg li ma naqari ci àdduna ama ko teg waaye lu naqari Garga Mbossé maa ko teg ndax dama ko daan tas écrit moo tax tanoor ñu génne bëgg mu bëreeg man. bi mu toll nii tey kan tey bu bëggee ma may ko revanche tey defaat ko lu raw li ma ko defoon tey. waaw Garga Mbossé niw luk la da jege diit lay na nekk niw luk boobu noonu laa gën a bon ci moom Garga bi muy doon Garga dëgg di dóor gaay ñu yeewoo hôpital ak di dóor muy daanu laa ko yóbbu top 5. bi muy doon garga nag laaloo de billaahi ci laa ko yóbbu top 5. mu matur si diggante bi bëri doole si diggante bi dem États-Unis fi mu ñu maturité ci diggante bi dem États-Unis bëri doole ni moom te suba suba suba suba bu ñu neexee jël vol bi yoon mi gars yi am pour dem ko yàlla dimbali nañ suñ Tuubaa dimbali nañ ci fu ñu neex dem. suñu neexee dem Canada bu ñu neexee dem Allemagne bu ñu neexee dem États-Unis bu ñu neexee dem Paris fu ñu neex dem fu mbër di dem sans borom dimbali na ma ba tey su ma neexee du ma fanaan dama fay dem. combat boobu taxawoon njardeem lay doon. njardeem la ma dugg New York mu dugg New York ñu waaj bu leen neex sa signature bi ñu defee ko foofu noonu.